close. Nañ tàmbali en attendant ma ñëw. Nañ commencé en attendant ma ñëw.
Lu. Lu. Yow mën nañu tàmm. Mën nañu tàmm.
bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñoo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di julli tey sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonante muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon dañuy fas yéene tàmbali li nga xam ne mooy sifa 2022 li ñu ci sant ñu war ko taxawee mooy jàngale aqidatu ahli sunnati wal jamaa bu a cheikh Mouhamad ibn Salih al Usaymin rahimahullahu taala borom xam-xam yi. li ñuy faral di wax toujours mooy nit mën naa di poser question nit mën naa poser question lan moo tax boroom xam-xam yi di bind téere lan moo tax boroom xam-xam yi di bind téere dan ne ñun suñu delluwaay mooy alquran mooy sunna est-ce que mënuñu woon dellu ci alquran ci biir téere bi directement ak ci biir sunna yonent bi directement génnee jàng fa aqidatu ahlu sunna wal jamaa lu tax ku toll ni ibnu usaymin ñëw bind téere à part tuddee ko aqidatu ahlu sunna wal jamaa lu tax loolu lu tax ko demee ni muhammad ibnu abdul wahab bind kitaabu tawxid wala mu bind kashfu shubuhat wala qawaidul arba lu tax ko demee ni alimamu tahawi bind al aqida tahawiya lu demee lu tax ko demee ni cheikh al islam taymiya bind al aqida al wasitiya xam ngeen ne loolu tey ci jamono am nañu koy posé question yooyu lu tax borom xam-xam yi bind ay téere est ce que alquran kese doyutoon ak sunna est ce que rek alxuraan doyutoon ak sunna lu tax ñu fi bind ay téere téere yi ñu fi bind lan moo ko fi indi loolu tontu bi mooy yow su ma la waxoon ne yow génneel aqidatu ahlu sunna wal jamaa ci biir alxuraan ak bi ci biir xadiis yi yow noo koy génnee yow est ce que am nga capacité mën ko génne est ce que am nga bagage xam-xam ci làkku arab bagage xam-xam ci balaaga bala bagage xam-xam ci wàllu usul ci wàllu maqasidu sharia ci wàllu xam-xamu aqida ak mantiq bu wér bu la may yow aaya aaya boo romb nga génnee ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa hadis boo romb nga génnee ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa le fait que ñëpp amuñu capacité boobu moo tax yenn borom xam-xam yi wala li ëpp ci borom xam-xam yi dem ci alquran dem ci sunna génnee fa loolu ber ko ci ab téere pour mën la may facilitation nga xam ne nekk aaya bi li ma koy romb lépp hadis bi li ma koy romb lépp ndeke lii lay wax lii lay saxal lii moo ko tax a jóg loolu moo waral borom xam-xam yi jóg di taalif ci fànn yu nekk pour leeralal nit ñi lu ñu war a xam ci seen wàllu diine loolu moo waral borom xam-xam yi sax tafsir alquran moo waral ñu ñu ñu ñu expliquer li nga xam ne mooy xadis parce que du ku nekk moo mën a jàng aaya bi comprendre ko du ku nekk mën a jàng xadis bi comprendre am na koo xam ne mën na ko comprendre mais am na koo xam ne foog ñu firil ko ko te mooy li ëpp ci nit ñi foog ñu firil leen ko li ëpp ci nit ñi su leen ko firilul problème day am tey façon idéologie yi nga gis fii tey ci wàllu diine idéologie yi nga gis yépp ñu koy tudd tey muy pas-pasu xawaarij murjia di pas-pasu chia di pas-pasu jahmiya ak yeneen yi li ko waral mooy ñàkk a am référence bu wér ci firi li nga xam ne mooy tekki shari- sharia yi ñenn ñi firee ko seeni xalaat ñenn ñi firee ko baat bi li muy tekki ci làkku arab te léeg-léeg tekki woo ci aay bi wala xadis bi loolu may leen ñu daal di déraper daal di réer ba pare di réeralaate nag loolu moo tax pas-pas bii muy aqidatu ahlu sunna wal jamaa saa su nekk day gën a feddaliku ñu koy gën a jàngale lan moo tax mooy toujours da ngay gis ay mbir yoo xam ne day ñëw di remettre en cause ci diine loo xam ni vraiment loolu kenn waru ci woon discuter am na mbir yoo xam ne kenn waru ci woon discuter parce que ci wàllu texte leer na mais ci wàllu xel leer na mais ay nit ñu ngi ñëw di ko remettre en cause ba léegi lu demee ne yàlla mi ngi ci kaw wala newul ci kaw loolu xam nga débat boobu waroon nañ koo dépasser ay nit buñ toogee ci ay plateau télé toog ci ay plateau rajo ay borom xam-xam di bind ay téere ne yàlla nekkul ci kaw léegi bu yàlla newul ci kaw fan lay nekk yàlla bu newul ci kaw fan lay nekk léegi lan la mooy pas-pas bu yàqu la li alxuraan saxaloon sunna saxal ko salafu saale saxal ko dañoo dem ba jamono ay nit ñëw di ko remettre en cause di ci indi débat di wax ne it arche existé na wala existé wul parce que yàlla lan lay doy arche ku toll ni yàlla lu muy doy arche léegi kii wax loolu mooy dafa jël yàlla natt ko ci nit parce que nit moom dafa soxla chaise dafa soxla dafa soxla banc dafa soxla gong dafa jël yàlla mesuré ko ci nit loolu nekkaat beneen problème te loolu dañ koy tere pas-pas alxuraan jàngalewul loolu sunna jàngalewul loolu nit ñi ba ñuy normal seen xam-xam yi di normal seen xel di normal jaxasoowul kenn jaxasowu ko loolu musul nekk discussion ci ñoom loolu tax na ñu war a jàngale waat aqidatu ahlu sunna wal jamaa mais ñu dema dem ba nit ñi yi nga xam ne ay fondamentaux la woon ci diine ji ginnaaw bi ñu ko jaxasee ba seen xel jaxasoo ñu dema dem ba nit ñi xamatuñ àqu yàlla sax far yàlla lu moom ak lu moomut luñ lu yàlla sañ ak lu mu sañul loo xam ne particularité yàlla la ak lu dul particularité tey bu ñu demee ba nit da ngay sarax nit sarax nit xaalis dimbale ko ci dara mu ne yàlla na la diw fay mel ni fii am na ku ñuy fayee ku dul yàlla yàlla na la diw fay wala sax léeg-léeg mu ne bàyyi naa la ak diw bàyyi naa la ak diw te kim lay bàyyeel dee na diw gis na li nga def diw mi diw mi dee nan la gisee li nga def mu ne diw gis na li nga def man aw ma sa fay waaye diw dana la fay kan moo fi fayaate ku dul yàlla diw gis na li nga def te diw moomu dee na ku dee nu muy gisaatee lu nekk ci ginnaawam mu nekk mbir yoo xam ne boo koy xool da ngay dem ba da ngay yéemu ci yàlla léegi yooyu yëpp sa dajee dafay aajowoo chaque fois ñuy beesalaat di jàngaat pas-pas bi wér bi nga xam ne alxuraan moom la fi bàyyi ak sunna ndax nit ñi lu jamono di gën a dem dañuy gën a dérailler déviation di gën a am ci wàllu pas-pas kon téere bi ñu jàng ki ko taalif borom xam-xam la ci borom xam-xam yàlla may xam-xam ñu bëri jàng nañ xam-xam mais yàlla may la xam-xam nga am ci éloquence ci wax may la xam-xam soo bindee ñëpp kontaan ci li nga bind ci wàllu xam-xam yàlla may la qabuul may la qabuul ñu nangu ñu ñëpp nangu la sa xam-xam bëgg la am cofeel ci yow loolu beneen domaine la. ba xam dañuy wax ni loolu mbirum sir la maanaam nit ki day baaxal baatinam day baaxal biiram boo baaxalee sa biir yàlla baaxal sa biti tey borom xamam boo fi gis mu am xabuul nit ñi nangul ko lu dul koo xam ne ku iñaan ku soxor iñaan ak soxor moom fii lañ ko fekk moo tax yàlla ci jeexintalu suratul falaq yàlla daal di koy indi qul auzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri gaasiqin iza waqab min sharri nafasaati fil uqad wa min sharri xaasidin iza xasad yàlla nee na day leen muslu ci iñaankat bi l'envieux iñaankat bi moment bi nga xam ne dalay envier dalay iñaane dalay soxore parce que feebaru soxor ak feebaru iñaan fi lañ ko fekk rawatina ci milieu xam-xam doomu aadama ni ko yàlla bindee képp ku la raw da nga koy iñaane li ëpp ci nit ñi soo leen ëppee alal dañ lay soxore iñaane la soo leen ëppee xam-xam ñu soxore la iñaane la soo leen ëppee mbooloo ñu soxore la iñaane la soo leen ëppee ay qualification ñu soxore la iñaane la soo leen ëppee ay capacité ñu soxore la iñaane la nit ak coxor ñoo ànd illa ma rahima rabbak ko loolu ko yàlla musal mais li ëpp ci nit ñi feebaru soxor ak iñaan dafa ne ci ñoom moo tax suñu borom wax ñu dañ ciy muslu nañ muslu ci soxor ak iñaan mais nañ muslu ci kii soxor moment bi mu lay soxore ba soxor gi du la jëriñ moo tax mu ne wa min charri xaasidin isa xasad ci borom xam-xam yi nga xam ni ci monde contemporain bi ñi ci gën a ëpp xam-xam ci domaine yépp nag gën ci siiw nit ñi gën koo nangul ay téeram gën a tasaaroo mu ëpp lu mu taalif ci la bokk ma cheikh Mouhamad ibn Salih al Usaymin nekk borom xam-xam boo xam ni faatu na boobaak léegi mi ngi bëgg a mat vingt et un ans yàlla na ko yàlla yërëm yàlla jégal ko fa nga xam ne fam fa mu nekk gënal ko fi nga xam ni fi la jóge mu taalif téere bi nga xam ne cosaan bi lu mu doon jàngale la lu mu doon jàngale ginnaaw gi ay ndongaam bind ko dajale ko jox ko ko mu daal di koy segg corriger ko daal di koy daal di koy édité mu nekk ab téere muy aqidatu ahli sunnati wal jamaa mu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ni ñu ko yàgg a waxee mboolem borom xam-xam bu taalif téere ci l'islam boo xoolee ci première page bi ca kaw bismillahi rahmaani rahim moo ci nekk loolu ngir roy alquran alquran 114 suuraat la 113 yëpp bismillahi rahmaani rahim la tàmbalee ci kaw benn saar moo tàmbooli bismillahi rahmaani rahim muy suuratu tawba lan moo tax mooy saaru dafa ñëw di wax ak naafiq yi ak wone plan yi nga xam ne ñu ngi koy def biir Médine nekk ak yonente bi alayhi salatu salaam yéene ko yéene ko dee yéene ko mu perdre ay ay bataayam di yàq diineem di ko jaxaseeg nit ñi di ko suufu saaru ñëw di wax ak naafiq yi te bismillahi rahmaani rahim yërmaande yàlla da cee nekk yàlla wone ni amul sax yërmaande koo xam ne ci saaru yi atte yi muy teg ak li muy wax da cee da cee écarté yërmaandeem jëmale ci naafiq yi bis ni ki tey dafa ñëw pour feeñal naafiq yi ñu nekk biir Médine ak seen i pexe ak seen i plan yi nga xam ne ñu ngi koy tëral beneen bi mooy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam lettre yi mu daan bind xam nga yonent bi ko yàlla yónnee Màkka mu door a ñëw nekk nekk yonent dafa fekk ay buur yoo xam ne ñoo fi nekkoon fekkoon na fi buuru romain yi buuru perse yi muy Kisra ak buuru romain yi mu Muqawqis ñooñu yonent dafa bindoon ay lettre ay lettre yoo xam daf leen ko bindoon di leen woo ci l'islam lettre yooyu soo delloo ci Sahih Bukhari wala nga dellu ci Tabarani wala ci Musnad Hakim lettre yi ñu ngi fa ba léegi borom xam hadis yi indi ko lettre boo ci dem da ngay fekk bismillahi rahmaani rahim min muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila fulan aslim taslim ila akhirih aslim taslim lettre bi mi ngi bàyyeekoo ginnaaw bismillahi rahmaani rahim mi ngi bàyyeekoo ci muhammad jëm ci buur diw maa ngi lay woo nga daal di jébbalu ci l'islam mucc kon yonent bi ay lettre am da ko doon tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ki doon bind danaan ko waxal bismillahi rahmaani rahim sulhul hudaybiya rek sulhul hudaybiya muy pacte hudaybiya bi doxoon diggante yonent bi ak yéeféeru Màkka yi ci sixième année jëm septième année bi ci ga- ci hégire bi bi muy bind lettre bi dafa wax sahaaba ne ko bindal bismillahi rahmaani rahim kon yonent bi alayhi salaam dañ koy imité ci loolu imité ko ci loolu kon loolu mooy tegtal bi borom xam-xam yi am na ñu ciy tudd xadiisu kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar wala fa huwa ajza wala fa huwa maqtu te xadis boobu moom dafa nekk xadis boo xam ne dafa faible dafa faible dafa am ñaari problème yu nekk ci chaîne de transmission bi moo tax wérul mu ne taqdim taqdim mooy li ngay tuddee introduction taqdim daañu wax taqdim daañu wax muqaddima daañu wax fazlaka yooyu yëpp daañu ko wax suñu waxee muqaddima ak taqdim même chose la maanaam amul différence kon taqdim bi taqdimu rek la def mais taqdim bi dafa am loo xam ne moom lañ ciy sous-entendre loo xam ne ci làkku arab dañ koy éliminer dañ koy xasaf mooy taqdimun bayna yadayil kitaab la mais bayna yadayil kitaab bi kenn du ko tudd dañ koy dañuy ki jàng arab dina xam ne suñu nee taqdim li mu jublu mooy taqdim bayna yadayil kitaab maanaam dafay def introduction ci tàmbalinu téere bi waaye du tudd loolu duñ ko tudd taqdimun rek lay wax mais taqdimun la bayna yadayil kitaab am ñu wax ne mën nañ ko tëggee neneen haza taqdimun bayna yaday alkitab taqdim bi nekk xabar li mubtada in mahzuf taqdiruhu haza haza taqdimun bayna yaday alkitab mu ne alhamdulillah ñu ngi sant yàlla waxdahu moom dong nag parce que yàlla ni ñu koy santee duñ ko santee keneen wasalaatu wasalaamu di julli tey sëlmal ala man laa nabiya baada ci ki nga xam ni mooy ki nga xam ne yonentu amul gannaawam même lii sax ñu ngi koy remettre en cause suñu diine ji dafa doy waar yonent bi ne amul yonent buy ñëw ginnaawam sax ñu ngi koy remettre en cause bés boo yeewoo gis ko saxal ne maamam yonent la te ba pare di menacer nit ñi ak di leen xuuxal bu ko kenn weddi wa ala alihi wa sahbi di julli tey sëlmal ci ay ñoñam muy ñi nga xam ne dañoo bokk ci njabootam te gëm ko parce que am nañu bokk ci njabootu yonent bi te gëmuñu ko ñooñu kenn du julli ci ñoom comme Abu Lahab comme Abu Jahl ñooñu dañoo bokk ci njabootu yonent bi waaye dañu ko weddi ñooñu taxu ñuy wax wa sax bi ak ay saxaabaam yi nga xam ni ñoo dajeeg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam gëm ko faatu ci lislaam bal jàppale ko def sacrifice ci seen alal sacrifice ci seen temps pour l'islam daal di tasaaro kon loolu muqaddima la boo xam ni euh, ñi nga xam ne ñoo édité livre bi ñoom ñoo ko def ñu édité livre bi ñoom ñoo ko def yaakaar naa mën nañ tëb mën nañ tëb loolu dem directement ci li nga xam ne mooy muqaddima borom téere bi ci page 5 ci page 5 mu mu ni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ginnaaw bi mu sant yàlla borom bindaafoo ni wal aqibatu lil muttaqin wane ne mujj gu rafet ñu ragal yàlla ñoo ko am wala udwaana illa ala zalimin ci diine diine noonoo ci diine dëgg-dëgg dañ koy def jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi te tooñkat yooyu mooy ñi tooñ yàlla moo ci jiitu te tooñ yàlla mooy bokkaale wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah nee na maa ngi seede ne amul kenn kuñ war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom dong te amul kuñ koy associé la sharika la kuñ koy bokkaaleel lahul mulku yàlla mooy borom nguur mooy borom nguur yàlla mooy borom nguur mooy nguuru yàlla amul commencement wala am na commencement amul commencement nguuru yàlla al mulku gis nga bi alif ak laam nguuru yàlla gi ñu xam amul commencement amul fin mais nguuru yàlla amul coup d'état yàlla kenn du ko coup d'état nguuru yàlla amul opposant yàlla amul opposant wala yàlla am na opposant yàlla am na ku koy opposé ci nguuram bi nguuru yàlla amul remplaçant koo xam day remplacer yàlla suppléant bu fiy toog ñu ne mooy vice nga président vice président day am ah wala premier ministre nekk ci wetam wala ñu ne président assemblée su président jógee wala mu nekk ci situation yoo xam ni dafa feebar wala mënatul exercer kii moo koy remplacer mais yàlla amul loolu yàlla amul suppléant amul vice amul remplaçant lawul mulku nguuram amul commencement amul fin nguuram amul opposant amul ku koy remplacer mais yàlla nguuram amul koo xam ne sa xel nekk na ci toog place am xam nga fii ku fi nekk président am na koo xam ne xelam mi ngi ci waa ji bëgg naa ko remplacer mais yàlla koo xam ne sa xel mi ngi ci dinaa ko remplacer amul parce que ku ñuy remplacer mooy kuy jeexal yàlla day jeexal yàlla du jeexal lahul mulku kon mooy borom nguur yemu fa waaye yàlla mooy joxe nguur fii ku am nguur moo la ñamal moom kan moo ko jox nguur yàlla ku ko jox nguur kenn joxu ko moo ko jox boppam mais keneen ku dul yàlla nguur gi nga am yàlla la ko jox moo la ko ñamal te sa nguur day jeex te nguur yàlla du jeex kon lahul mulku mooy borom nguur alxaqu nguuru dëgg nguuru yàlla rek mooy nguuru dëgg almubiin ngoo xam ne dëgg gu biir la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh seede na muhammad jaamu yàlla la yonante la fii ku fiy seede shahadatu anna muhammadan rasulullah foog nga boole ñaari nga nangu ne muhammad jaam la boo fa yemee baaxut parce que juif yi nangu nañ ne muhammad jaam la chrétiens yi nangu nañ ne muhammad jaam la mais nanguwuñ ne rasul la loolu lañ nanguwul nanguwuñ ne yonante la kon soo nangoo ne muhammad jaam la fi nga yem mooy fi juif yi yem ak chrétiens yi mais da ngay avancé wa rasul yonent la kon ñaari foog nga boole ko mooy jaamu yàlla la yàllaa ko sàkk mu bokk ci jaamu yàlla yi génnul ci xeet ci cadre jaam yi waaye lan la mooy rasul la yonent la mu am ñeneen ñoo xam ni dañoo dañoo ëppal aussi ci baatu abd bi dañ ne muhammad abd la waaye ban muhammad mooy abd loolu mooy suufiya xulaatu suufiya dañ ne dafa am muhammadu zaat ak muhammadu nuur muhammadu zaat mooy abd muhammadu zaat kooku mooy abd mais muhammadu nuur kooku mooy leer gi yàlla bindoon kooku du abd mooy awalu maa xalaqa maa xalaqa allaahu nuuru nabiyika yaa jaabir yow jaabir li yàlla njëkk a bind mooy sa leeru yonant la yàlla njëkk a bind ñu wax ne muhammad am na leer gaade am na leer gu ne ci moom waaye jëmmam moom du leer nit la ku am ndey ak baay ñu xam yaayam xam baayam xam maamam moom yonent bi xam ay ndijaayam xam ay bàjjenam moom alayhi salaatu wasalaam xam ay ay ay ay frère am wala déet kon da ngay nangu ne yonent yàlla muhammad xam nañ date bi mu juddu léegi ñoom dañ naan la muhammadu zaat mooy muhammad bi nga xam ne aminaay baayam aminaay yaayam abdalaay baayam abdul mutalib mooy maam ji abu talib mooy papaam bu ndaw xalima moo ko nàmpal muhammad boobu kooku moom xam nañ ne moom jaamu yàlla la parce que xam nañ kañ la commencé Muhammad boobu xam nañ kañ la commencé xam nañ aussi kañ la jeex mooy bi mu faatoo moo dund 63 ans yi mais muhammadul nuur mooy muhammadul nga xam ne moom leer la muhammadul nuur googu nga xam ne leer la kooku kenn xamul kañ la tàmbali moo jiitu aduna moo jiitu asamaan ak suuf ci leeram ci la yàlla amalee asamaan ci la amalee suuf ci leeram ñun ci lañ amee aadama ci la amee ñun ñi ci lañ amee ci leeram ci la malaayika yi amee ci leeram nature bi li fi nekk lépp ci leeru muhammadul nuur googu ci la amee léegi muhammadul nuur googu kon léegi yow saxal nga ne yonent yàlla muhammad ñaar la léegi d'accord ñaar la mooy muhammadu zaat mooy muhammad bi judd ñu xam ko nga xam ne xam nañ date de naissance am xam li nga xam ne mooy date de disparition date bi mu fi jógee xam nañ papaam ak yaayam xam ko ko nàmpal muy nit ki beneen muhammad bi ngay wax yow mooy muhammad bi nga xam ne bu bu bu abstrait la kenn du ko gis bu imaginaire la boo xam ne leer la muhammad googu moom kenn xamul kañ la judd parce que moom ci leer ga leer googu mi ngi fi nekk bi yàlla sàkkee aduna la ko sàkkaale mu am muhammad boobu amul commencement amul fin muhammad bi nga xam ne jëmm la moom dem na mais muhammad leer gi mi ngi fi ba léegi ba tax na yow leer googu léeg-léeg am na ay wird yooyu def am na ay ñaan yooyu def mooy ñëw nekk ak yow mais jëmm ji moom dem na muhammadu nuur googu mooy teew booy wax asalaamu alayka ayyuhan nabi di taaya boobu ngay nuyu muhammadu nuur boobu ngay nuyu zaat bi dem na mais nuur gi leer gi moom ngay nuyu mooy teew léegoo nag ñi naan la yonent bi feeñu na ma muhammadu nuur bi moo ñëw muhammad leer gi moo ñëw loolu soo ci duggee mu nekk benn damay bañ mu di seen bopp yi parce que c'est tellement philosophique boo ci duggee da ngay réer boo ci duggee da ngay réer muhammadu zaat ak muhammadu nuur fan ngay jàng aaya buy wax muhammadu zaat wala xadis buy wax muhammadu nuur léegi yonent yàlla muhammad fan ci ay kàddoom la waxee ni man muhammadu nuur la muhammadu zaat boo delloo ci jeexuntalu suratul kahfi lan la wax qul innama ana basharum mislukum léegi yow foofu ban ban misliye boobu mu wax nit laa comme yéen te al misliye inda al usul ahlul usul mooy al mutaabaqa fi kaafatil wujuh man nit laa comme yéen ci plan yëpp nag damaa juddu ngeen judd damay faatu ngeen di faatu damay feebar ngeen di feebar may xiif di mar lépp luy dal nit daf may dal sama différence ak yéen lan la yuuxa ilayya kese nag mooy man wax yi daf may dikkal ci asamaan te yéen fii kenn wax yi wax yi dikkalu leen ku ko fi wootee waxoo dëgg man wax yi daf may dikkal man yàlla daf maa yónni jo- jox ma message di ko jaarale ci jibril loolu mooy sama différence ak yéen mais nit laa comme yéen am naa ay soxna am ay doom ah di lekk di naan di nelaw di yeew ainsi de suite lépp luy nekk ci nit mi ngi ci man basharum mislukum différence mooy yuuxa ilayya dañ may dañ may dañ may wax yu wax yu damay dikkal yàlla lay wax ak man jaare ko ci jibril yéen loolu ngeen amul yàlla waxut ak yéen jaare ko ci jibril amu leen loolu loolu mooy di sama différence ak yéen kon plus bi ma leen ëppalee plus bi loolu kese la mooy man dañ may wax yu te yéen kenn wax yu leen mais nit la te yàlla wax na ci alxuraan ni gaa yi dañoo waxoon ne lu teewoon bu fekkee yàlla li muy woote woo dëgg la mu bañ a yónni nit mu yónni malaaka bu yàlla woo yónni woon malaaka nit ñi dañuy daw ne ko yàlla malaaka nga yónni te ñun nu àttanuñ malaaka lu tax yónni woo nit encore moo tax yàlla fere ne loolu teel a yónni nit mu teel a mu teel a yónni nit kon muhammadu nuur ak muhammadu zaat amul ci texte yi ay nit a ko créé te ñu ngi ko créé à partir de sixième jëm septième siècle ñi ci njëkk a bind tey booy xool boo ci dellu téere yooyu ñu koy wax mooy ibnu arabi borom borom alfusuus abu taalib al makki ñooñu ngay fekk ñuy ñuy wax yooyu Ghazali yi ñëw moom it wax ci à la fin mu génn ci parce que loolu boo ci duggee dañ ciy réer da ngay wax loo xam ni li ngay wax da ngay wax di wax ay wax yu philosophie yoo xam ne lépp ci xel nga ko teg ak xalaat mais mënoo ko prouver ci wàllu texte mënoo ko prouver ci li nga xam ne mooy wàllu texte loolu moo tax yonent yàlla Muhammad abdullah rasul la jaam la yonant la te xaatamun nabiyin tëj na buntu yonant yi wa imaamul muttaqin mooy ñi ragal yàlla mooy seen njiit sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin moo tax yonent yàlla muhammad sooy julli ci moom da ngay boole assalaatu wa taslim da ngay def assala ak taslim yeneen yonent yi bu la neex nga ne Muusa alayhi salaam faqat yem ci salaam bi Isa alayhi salaam Nuux alayhi salaam mais muhammad alayhi salaatu wa salaam da ngay boole ñaari lan moo tax inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu dafa boole salaat beeg taslim bi salli sallu alayhi ah wa sallimu salaat ak taslim da ngay def asalaat def taslim ci yonent bi sallu wa sallimu ah da ngay def salaat def taslim ñeneen ñi nag du charte soo boolee woon soo ne woon Moussa alayhi salaatu wa salaam dagan na jaayis boo ne woon Isa alayhi salaatu wa salaam dagan na nga boole salaat beeg taslim bi mais li ëpp ci ñoom salaat rek la ñuy def ci ñoom wala salaam rek la ñuy def ci ñoom. alayhi salaam isa alayhi salaam musa alayhi salaam mu ne amma baat fa inna allaha taala arsala rasulahu muhammadan yàlla yónni na yonentam bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil huda jox ko njub wa dinil xaq jox ko diinay dëgg jox ko njub njub li mooy alquran li mu indi wa dinil xaq jox ko diinay dëgg diinay dëgg ji mooy diinay lislaam rahmatan lil alamin diine ji dafa ñëw nekk yërmaande ci nit ñi wallahi l'islam bu ñëwutoon difficilement la ñuy dund su l'islam ñëwutoon wax ñu lu dagan wax nañu lu araam wax ñu lu baax wax ñu lu bon tere sàcc tere fen tere jëw tere rambaaj tere yàq der tere leb te doo fay yooyu yëpp bu fekkoon l'islam ñëwul amul suñu dund gi lu ko organiser loi de la jungle moo fi am gis ngeen animaux yi nu ñuy dundee ku ëpp doole sa moroom napp nit ñi dañuy mel ni ay animal te doomu aadama dafa gënoon noobul animal moo tax yàlla bëggul ñu dund comme ni animal yi di dundee loolu moo tax bu l'islam ñëwutoon dañuy dund difficilement suñu dund gi yëpp l'islam moo ko organisé lépp looy def wax na la ne lii lu baax la wala lu bon la wax na la aussi nii nga koy defee wala nële nga koy defee daf ko organisé mais animaux yi yàlla dafa leen a wàccee fii ba pare lekk ak naan la ñuy def mu seetaan leen mu seetaan leen loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax diine lislaam dara lu métti luy lor nit nekku ci yërmande la lil aalamin ñe nit ñi waaye moom yonent bi wa qudwa lil lil aamilin dafa nekk roy moom yonent bi ci képp kuy jëf wa xojja ala al ibad dafa ñëw aussi li mu indi nekk preuve lay ci jaam yi ajmaina ñoom ñëpp yowmal qiyaam nit ku di ñëw ne yàlla yónni woo woon ci man yonent wàccee woo woon diine indi woo woon téere boo xam ni ci laa doon mën a jaar pour xam nu ma lay jaamoo xam lu araam xam lu dagan parce que doomu aadama wa kaana al insaanu aksara shay'in jadala doomu aadama lu yàlla bind nit a ci dàq werante moo ci dàq jéem a wut ay issu yoo xam ne ci lay jaar nit day def ba lu ne weng mais foog mu jéem koo wutal ay lay ak issu lii moo tax de justification nit da cee aay léegi yàlla loolu la xam moo tax bunt yi da koy tëj mu ne bayyana bihi wa bi ma an wa bi ma unzila alayhi min alkitab yonent bi leeral na ci njub liñ ko jox ak ci téere bi ñu wàccee ci moom wal xikma ak li nga xam ne mooy xikma bi nga xam ni moom la ko yàlla jox muy sagesse bi kullu ma fihi salaahu libaadi lépp luy baaxal jaam yi wa istiqaami wa istiqaamati ahwaalihim lépp luy tax seen mbir mën a jub mën a normal fii diinihim seen diine wa duniyaahum seen aduna mel aqaadi ci ay pas-pas lépp loo xam ne pas-pas bu ñu war a fas la lu ñu war a gëm la dogme bu ñu war a gëm la boo xam ne mooy tax suñu diine baax suñu aduna baax yonent bi jàngale na ko kon soxla wuñ keneen ku ñuy wax leneen ci wàllu pas-pas wal amal ak li nga xam ne mooy ay jëf lépp lu ñu war a jëf ci jëf ju baax yonent bi jàngale na ko Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu da doon wax ni yonent bi jógewu fi lu dul ne picc buy naaw ci asamaan si picc buy naaw ci asamaan si yonent bi wax nañu ci xam-xam picc bi lu tax muy naaw buñ doon toog picc naaw danañu wax lu tax picc bi di naaw ak lu ci aju yonent bi wax nañu ko moo tax Ibnu Mas'ud doon wax ne ittabi'u wala tabtadiu qad kufiitum yéen li ñu leen sant mooy diine ji mat na topp rek ngeen war a def topp kenn santu leen ngeen di créer parce que lépp lu ngeen war a xam lu ngeen war a jëfe ñëw na kon dañ leen a sant rek ngeen topp moo tax mu ni wal amalil qawima ak jëf yi nga xam ne jëf yu jub kocc la wal axlaaqil fadila jikko yi nga xam ne ay jikko yu rafet yu baax la wal aadabil aaliya ak comportement teggiin yoo xam ne yu kawe la soo koy jëfee nit ñi dañuy xam ne yow mii da ngaa kawe ci wàllu jikko mu ne fa taraka sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ala almahajjati albayda yonent bi dem bàyyi xeetam ci xàll woo xam ne ah weex tàll la layluha ka nahaariha guddeem ak bëccëgam ñoo yem c'est-à-dire dafa leer a leer ba léeg-léeg di nga nekk ci ab dëkk wala nga nekk ci benn place lamp yi leer ba guddi ak bëccëg ñoo yem wala déet loolu ku dem ci yenn réew yu xam ko foofu guddi ak bëccëg ñoo yem parce que lumière yi ñu yor ni muy tàkkee bu guddi jotee di nga yëg ne guddi jot na mais ci leeraay ni bëccëg bi leeree woon la leeree yonent bi alayhi salaam yoon yu mu ñu bàyyi noonu la mel dafa leer ba lu lëndëm nekku ci guddeem ak bëccëgam ñoo yem mu ne yoon woowu laa yaziru anha du ci du ko wàcc mukk du jeng ci yoon woowu mukk illa haalik lu koo xam ne ku nar alku la ku nar alku rek ngay gis li yonent bi jàngale ci sunna mu leer muy dem di topp yeneen mbir yoo xam ne ma ngi cee rey boppam du ca sonn mu jëral ko xuloo jëral ko xeex jëral ko dagg sant léeg-léeg mu jëral ko tuur deret ca loola pour défendre ko ak saxal ko te baatil la mu ne fa saara ala zalika ummatahu xeetam dox ci loolu yoon woowu mu indi ci lañ dox alazina stajabu lillahi wa rasulih ñi nga xam ne ñoo wuy yonentam ñoo wuy yàlla ak yonente bi yaa ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasul ida daakum lima yuhyikum aay boobu ci la borom xam-xam sukkandiku mooy ne xeetul islam dafa am ummatu daawa ak am lu ñu tuddee ummatul istijaaba xeetu yonent bi ñaari xeet lañ moo dafa am ñoo xam ne ummatul istijaaba lañ mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo wuy si yonent bi ba ànd ak moom nekk ci li yonent bi digle ñoo ñuy ummatul istijaaba am ñoo xam ne ummatu daawa lañ ñoom ñi ngi ci xeetu yonent bi mais dañ leen a war a woo ñu ñëw parce que nekkaguñ ci yoon bi ummatu daawa mooy ñi nga xam ne dañuy réclamer réclamer dañuy réclamer ne ñoom ci xeetu yonent bi lañ bokk loolu mooy li ñuy réclamer chaque fois mais nekkaguñ ci li yonent bi indi ñeneen ñi ñooy ñi nekk ci li yonent bi indi mooy ummatul istijaaba ñoom wuy nañ yonent bi li mu jàngale ci pas-pas ñu ngi ci li mu jàngale ci jaamu yàlla ñu ngi ci li mu jaama jàngale ci ay jikko ki comportement ñu ngi ci ci la ñu nekk mais ñeneen ñi nee nañ ñun yonent bi lañ topp mais li yonent bi jàngale nekkaguñ ci topp googu ci ay kàddu la yam wax mais boo leen di natt ci wàllu acte ci wàllu jëf sori nañ ko pare guñ nekk nekkaguñ ci nekkaguñ ci li yonent bi indi ñoom ñooy ummatu ummatu daaw wahum xiiratul xalq kon ummatul istijaaba ñi wuy yonent bi ñoo gën ci doomu aadama yi ci xeet bi min sahaaba sahaaba yi ci lañ nekkoon lu yonent bi jàngale wa taabiin ñëw seen ginnaaw walazina tabaauhum bi ihsaan ñi leen topp ci ginnaaw ci rafetal fa qaamu bi shariatihi ñu taxaw ci shariaam wa tamassaku bi sunnatihi jàpp ci sunnaam wa addu alayha bin nawajis ñëpp ko ngëbin bu dëgër comme koo xam ni dafay màtt dara ci gémmiñam màttee ko ay dëgëjëm parce que ba ñu kanam kenn du ko màttee sooy màtt dara nit kiy xëcc soo ko màttee ba ñu kanam buy xëcc ba ñuy dem parce que ba ñu kanam dëgërul su boobaa ba moytuwul mën ngaa doon mag muy jàll da nga koy màttee ba ñu ba ñu fii moo gën a dëgër moo tax yonent bi alayhi salaam joxe misaal ci loolu arab yi ci seen misaal arab su doon màtt dara màtt ba dëgër dañuy wax ne adda alayha bin bin naajis wala bin nawaajis mooy màttee ko dëgëj yi dëgëj mooy ba ñu ba ñi ngay sàqamee ba ñi ngay yi ngay lekkee dañ caa téye téye gu dëgër aqidatan ca pas-pas ba ibada wa ibada jaamu yàlla ga wa xuluqan ca jikko ya wa adaban ca teggin ya fa saaru humu taifa ñu mujj nekk mbooloo mi nga xam ne allazina ñoom ñi nga xam ne laa yazaaluuna alal xaq duñ dañ di nekk ci dëgg zahirina di ci am dimbalal yàlla di ci fës laa yaduruhum du leen lor mukk man xasalahum ku leen di jéem a toroxal di leen jéem a suufeel di leen jéem a xeex di leen jéem a gàcceel aw xaalafahum wala kuy jéem a wuteeg ñoom ca loola hatta yatiya amrullah ba mbirum yàlla di ñëw ba yàlla di tukkal aduna wahum ala zalik ñoom ci loolu dañuy sax loolu dafay defe référence ci xadisu shaddad ibn aws la tazalu taifatu min ummati zahirin ala alxaq mu ne wa nahnu ñun walillahi alhamdu ñu ngi sant yàlla ibnu usaymin mooy wax loolu ala atharihim ci seeni tànk saa iruun ci la ñuy dox wa bi siiratihim ci seen doxaliin seen méthodologie al muayida bil kitaabi wa sunna bi nga xam ni dafa dimbandikoo alquran ak sunna muhtaduun ci la ñuy ni niitoo ci la ñuy jube naqulu zalika ñun dañuy wax loolu ne ci ahlu sunna wal jamaa lañ bokk waxuñu ko ngir tiitar de waaye dañ koy wax tahaddusan dañ koy wax bi nicmatillahi ngir yëg xéewalu yàlla googu taala bu kawe bi wallahi bokk ci ahlu sunna xéewal wa bayaanan ak leeral li maa yajibu an yakuna alayhi kullu mumin li nga xam ne jullit bu nekk war na cee nekk yàlla bu la defalee xéewal da nga ko war a waxee wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ci buntu boobu la ko waxee mais wax ko ci wàllu tiitar parce que boo xoolee monde bi ñi mu jaxasoowee kii naan la yàllaa ngi ci kaw kii naan la yàllaa ngi fépp yàllaa ngi fépp kii ne la yàlla nekkul ci kaw kii naan la am na ku mën li yàlla mën am na ku xam li yàlla xam am na ku sañ li yàlla sañ am na ku ñu war a defal li ñuy defal yàlla am na ku ñu war a màggalee ni ñu war a màggalee yàlla am na ku ñu war a ragal ni ñu war a ragalee yàlla ku kooku di wax loolu pas-pas yooyu yëpp ne fi yow yàlla muccal la ci nga nekk ci pas-pas bu wér jox yàlla li mu moom jox doomu aadama bi li mu moom jël li nga moom da ngay sant yàlla da ngay yëg ne yow li nga nekk nii sant yàlla la da ngay gis nit nekk ci ay pas-pas yoo xam ne di ci rey boppam subaa ngoon mu yow mu ngay posé wu question di jaaxle nit naka la mën a gëmee mbir yu mel nii ba pare di ci sonn di ci sonn kon boo nekkee ci loolu yow nekk ci li yonent bi bàyyi mu leer ak njaxas ni mu bëree nga xam ne say junni moroom yow ñu ngi ci lee yàlla sempi la tànn la def la ci yoon bu wér bi ah kooku xéewal la da ngay sant yàlla moo tax mu ni wa nasalullah ñu ngi ñaan yàlla an yusabbitana mu dëgëral ñu wa ixwaana al muslimin ak suñu mbokk jullit yi bil qawli thabit ci kàddu gu dëgër fil xayaati dunia fii ci aduna parce que nit ki mën ngaa dëgër ci commencement mais dafa am ay mbir yoo xam ne da lay këf nga jékki-jékki am déviation da nga gis nit ku nekk ci yoon wu jub jékki-jékki changé lan moo tax mooy bànneexu bakkan seytaane ay subuhaat ay lënt ñëw na këf ko ba mu wàcc yoon bi dem moo tax da ngay ñaan toujours yàlla saxal la dëgëral la fii ci àdduna wa fil axira ak alaxira wa an yahba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab yàlla sóob ñu ci yërmandeem parce que mooy kii maye yërmande moom yàlla mu ne wala ahamiyati hadha al mawdu am solo gi nga xam ne importance bi nga xam ne sujet bi am na ko thème bi am na ko wa tafarruqi ahli ahwaa'il xalq ak ni nga xam ne doomu aadama yi noonu lañ tàqalikoo ci seen wàlli bànneex fii ci bunt bi ahbabtu bëgg na an aktuba ala sabal ixtisaar mu bind loo xam dafay nekk benn résumé ixtisaar résumé aqi aqi aqidatuna ci suñu pas-pas aqidatu ahli sunnati wal jamaa mooy pas-pasu ahli sunna wal jamaa boo xiyee mooy al imaanu billah ahlu sunna wal jamaa seen pas-pas fi mu tàmbalee mooy fi gëm war a tàmbalee ci mooy gëm yàlla ngëm fan la war a tàmbalee ci yàlla balaa ngaa gëm dara sa ngëm dafa war a tàmbalee ci gëm yàlla al imaanu billah mooy gëm yàlla gëm yàlla boobu ak li ci aju mais gëm yàlla bi rek tey boo ci ñëwoon taxaw ci problème bu sérieux la problème bu sérieux la am na koo xam ne ni mu gëmee yàlla boo ci taxawoon mën nga cee wax un an di wax doo pare léegi boo jógee ci yàlla bu malaaykat yi malaayka yi soo ñëwee ci gëm malaayka yi gis ci problème bu sérieux boo xam ni ba war a taxaw la la nga cey gis wute naag lu yonente bi jàngale wute naag lu alquran jàngale wa kutubi yi gëm téere yi wa rusuli yi gëm bés penc gëm yonent yi wala yowmil axir gëm bés penc wal qadar yi gëm dogal xayri yi la ca baax wa sharri yi la ca bon lii lañ bëgg a faram-pàcce ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa ci yàlla ci li nga xam ne mooy malaayka yi téere yi yonent yi ak bés penc ak wàllu ndogal parce que bunt bi dafa bëri ay déviation saailan illaha taala an yajala dalika xaalisan li waje ñu ñaan yàlla lii ñuy xuus di ko bind di ko expliqué mu sell te yàlla rek tax muwaafiqan li mardaati mu dëppoog ngërmandeem naafian li ibaadi nekk luy jëriñ jaamam yi kon mu ne aqidatuna ñun suñu pas-pas suñu ngëm-ngëm suñu dogme lii la aqidatuna suñu pas-pas mooy al imaanu billah mooy dañ gëm nañ yàlla gëm yàlla goo xam ni amul amul dut wa malaaykat yi gëm nañu ay malaayikaam wa kutubi ay téere wa rusulihi gëm nañu ay yonantam yi mu yónni yépp wal yawmil aaxir gëm nañ bés penc ne bés buy ñëw la aduna ci lay jeex wal qadar gëm nañ li nga xam ne mooy le décret divin mooy ndogal xayrihi li ci baax wa sharrihi li ci bon fa nu'minu bi rububiyatillahi taala dañuy gëm li nga xam ne mooy rububiyatullahi taala mooy ne yàlla mooy buur mooy ki amal li am dañuy gëm amug yàlla waaye gëm moom gi yàlla moom jaam yi ay loolu li muy tekki mooy bi annahu rabbu ar rabbu yàlla mooy borom bi yàlla mooy borom bi gis nga ci làkku arab daganul du dagan mukk soo ko defee fët bu garaaw la ci aqida nit nga ne ko ar rabbu rabbu li muy tekki mooy seigneur mooy ki moom mooy ki nga xam ne moo moom baatu moom rabbu mooy almaaliku léegi nit mën ngaa wax rabbul bayti borom kër gi rabbu sayaarati borom oto bi mën nga kaa wax rabbul madrasati borom école bi rabbul usrati borom famille bi mais ar rabbu kenn ko moom bi alif ak laam kenn ko moom mooy yàlla moo tax borom bi yàllaa ko moom léegi nag sañ ngaa wax ci nit ne ko borom kër gi borom oto bi borom njaboot gi borom néeg bi borom nangam moom lim moom da nga ko koy askane da nga ko ci idaafa rabbu nangam da nga koy idaafa ci lim moom da nga ko koy askanale waaye borom bi kenn du ko wax nit lan moo tax yàlla ñu naan ko borom bi parce que yàlla moo moom lépp te mooy borom lépp soo fi nekkoon naan yàlla moo moom nit ñi nit ñi ñan la moom moo moom góor ñi moo moom jigéen ñi moo moom mag ñi moo moom ndaw ñi moo moom ñi wér moo moom ñi feebar moo moom ñi gis moo moom ñi gisul doo fi jóge léegi pour nga noppalu nga ne borom bi mooy borom lépp mais nit nit lim moom mën nañ ko mën nañ ko quantifier wala mënuñu ko quantifier mën nañ ko lim wala mënuñu koo lim man mën naa lim li nga moom léegi mën naa commencé lim boo moytul balaa maa àgg diis mu jeex su ma nee borom kër gi borom portable bi borom montre bi borom yére yi borom dàll yi lan laa ciy teg est-ce que jeexul ah jeexal na mais yàlla soo fi doon lim boo jëwee ci nit ñi bala ngaa pare dem ci asamaan ñaata asamaan juróom-ñaar soo paree ci asamaan yi ñëw ci suuf soo paree ci suuf dem ci malaayka yi soo paree ci malaayka yi dem ci jinne yi soo paree ci jinne yi dem ci animaux yi ak animaux yi ne ci biir ci ci jaww ji yi ne ci kaw suuf yi ne ci biir suuf yi ne ci biir géej mbaa di nga fi jóge boo moo jël say mbokk dañuy ñëw jël la yóbbu parce que doo fi jóge li yàlla moom mënoo ko lim mënoo ko lim parce que yàlla moo xam li mu sàkk nu mu toll yàlla moo xam li mu sàkk li mu toll léegi comme yàlla li mu moom kenn xamul nu mu toll dañ naan rek ar rabbu borom bi nga xam ne mooy borom lépp mu jeex kon ar rabb alxaaliqu mooy aji sàkk fii kenn nekk fa kuy sàkkaate ku dul yàlla yàlla mooy sàkk nit koo gis muy dox yàllaa ko sàkk nit lu mu ñeme ñeme yàlla sañul wax ne diw mi maa ko sàkk su ko waxee rek nit ñi bàyyi la nag xam ne wax dëgg yàlla waxi dof ngay wax xanaa bala ngaa sàkk kenn sàkk sa bopp yow te yow sàkkoo sa bopp doom ji nga jur sax sàkkoo ko dangaa sabablu rek kii sàkkaate mooy borom bi subhanahu wa taala yàlla mooy sàkk c'est le créateur absolu mooy sàkk sàkk goo xam ne amul amul keneen ku ko mën ko dul moom al al al malik mooy buur bi yàlla su ñuy wax buur mooy yàlla mooy buur bi buuru buur yi ku fi nekk buur yàllaay sa buur ku fi nekk buur yàlla la jox nguur ku fi nekk buur yàlla di la jeexal sa sa nguur moom yàlla subhanahu wa taala moom nguuram nag la ma waxoon ca commencement amul commencement amul fin amul opposant euh, kenn du coup d'état nguuru yàlla fii ku dul yàlla sa nguur mën nañ ko coup d'état yàlla mën nañu ko coup d'état kan mooy osé coup d'état ko kan la yàlla du ko ñuy coup d'état nguur googu mooy nguur gi sax dàkk te muur nguur gi mat mooy nguuru nguur yi moo tax nguuru yàlla rek kay nguur ñaata ngay gis ñu ne la diw roi la woon wàcc na wala dee na wala dañ ko coup d'état wala dañ koo dañ ko fee jële ainsi de suite mais sunu borom subhanahu wa taala nguuram loolu amu ci kon al al maliku mooy buur bi al mudabbir jamiul umur mooy ki nga xam ne mooy tàggat mooy doxal ah mooy gérer mboolem mbir yi le détenteur al mudabbir li jamiul umur mbir yi ci loxo yàlla nekk fii kenn mënu fee indi guddi ku dul yàlla yow nii boo yàkkamti woon nii léegi léegi guddi ñëw defal lu la neex mënoo fexe ba guddi ñëw bu yóbboo nga dugg fii fay làmp yi fay leen làmp yi baasal fii lëndëmalal lépp taxul guddi ñëw parce que guddi daa am ku ko moom moo koy indi te heure am bu jotee mu ñëw bu heure am jotul du ñëw soo yàkkamti woon bëccëg ñëw nga nekk ci guddi gi yàkkamti bëccëg ñëw yàkkamti yàkkamti mënoo fexe ba bëccëg ñëw bu yóbboo nga taal làmp yëpp mu leer taxul mu nekk bëccëg lan moo tax mooy bëccëg daa am ku ko moom moo koy soob mu indi ko heure am bu jotee ci la koy indi kooku mooy yàlla kon al mudabbir lu mu tàng-tàng nga bëgg mu sedd li nga mën rek mooy taal sa clim wala sa ventilo mais mënoo indi seddaay parce que seddaay daa am ku koy indi te indiwu ko waxtoom bu jotee ci la koy indi moom yàlla subhanahu wa taala mooy def mu taw mooy def mu naaj moom yàlla mooy indi ngelaw loolu lépp mbiram la kon al mudabbir mooy kiy tàggat mbir yi te wallahi baat boobu soo ci taxawoon yàlla ni muy tàggatee mbir yi da lay yéem xoolal aduna bi bi yàlla sàkkee suñu maam aadama ba jamono ji di fi jaar ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ku dul yàlla di fi jaar ci ñu baax ak ñu bon kenn xamul ñëpp ku dul borom bi subhanahu wa taala mais nga xool aduna bi yàlla def ni mu tàggatee mbir yi suñu borom def am ñuy judd chaque jour am na ñuy judd mais chaque jour am na ñuy faatu wala déet heure bu nekk seconde boo jël minute boo jël am na ci ay doomu aadama yuy dee am yu am am yu am yu judd mais suñu borom géré na affaire bi dosé ko ci anam boo xam ne ñiy dee duñ ëpp ñuy judd carrément. ba do ba adduna bi mën a manqué ay nit su fekkoon ne ñii dee dañoo ëpp trop dañuy jékki-jékki ñu ne adduna bi dafa am dafa manqué ay nit wala déet adduna bi dafa manqué ay nit parce que lii dee daa bëri mais lii dee mi ngi dee li judd di judd nit ñi di fi nekk te adduna bi manqué wul nit manqué wul ay góor manqué wul ay jigéen manqué wul ay vieillard manqué wul ay jeunes ñëpp ñu ngi fi boo soxlawee vieillard yi gis leen boo soxlawee ay jeunes gis leen boo soxlawee góor gis leen boo soxlawee jigéen gis leen te pourtant nit ñaa ngi dem mais téye na ko ci anam boo xam ni adduna bi du manqué nit mais xoolal suñu borom ci almudabbir su fekkoon dafa bàyyi doomu aadama yëpp nekk fi kenn du dee problème bu séerée mooy am nit ñi dañuy lekkante kon lekkante parce que nit ñi monde bi day bëree bëri booba moytu lekk dina manqué naan dina manqué yow xoolal li fi nekk ci monde bi actuellement 7 milliards et quelque am ay zones yoo xam ne amuñu ndox mu ñu naan am na wala amul ñu naan la famine am na famine am na ci yenn zones yi waaw bu fekkoon kenn deewut suñu maam aadama ba léegi kenn deewul ñëpp a ngi fi di nga gis ku yóotu nit di ko lekk di nga gis ku xëcc nit di ko lekk waaw parce que su boobaa day day day catastrophique day day waat mais suñu borom ci xikmaam ci mbaaxam ci mën li muy def moom yàlla mu programmé ko am ñuy wàññee ko ci dem chaque jour am ñuy ñëw mu limité ko ci anam boo xam ne lor du ci am al mudabbir di jamil umur sans exception mbir yëpp yàlla koy tàggat amul foo xam ne fan naan ko yow yàlla lii nga géré fii nga yem déedéet moo géré lépp wa nu'min dañuy gëm bi uluhiyatillahi taala ci nekk gim nekk yàlla nga xam ne moom lañ war a jaamu jaamu gi ñu ko war a jaamu ngir ne mooy yàlla ay bi annahu ilahul xaq mooy yàllay dëgg leneen lu fi nekk yàlla yàllay caaxaan la yàllay dëgg bi moom mooy borom asamaan ak suuf ki sàkk jaam yi sàkk jinne yi sàkk malaayika yi sàkk doomu aadama yi sàkk fóon bi ak flor bi kooku mooy ilahul xaq mooy yàlla lu tax mooy dafa prouvé yàlla dafa prouvé dafa wone li li tax mu nekk yàlla ku sàkk asamaan du yàlla prouvé na wala prouvé wul ku sàkk suuf du yàlla léegi sàkk asamaan ak suuf doy na yàlla bu yemoon foofu rek doy na yow ba nga juddoo ba léegi sa bët bii mës ngaa gis lu gën a rëy asamaan créature boo xam ni moo gën a rëy asamaan bu toll ni asamaan gis ngeen ko yéen est-ce que gis ngeen ko asamaan ku xam fu mu tàmbale ku xam fu mu yem yéen ñi def science am na mesure bu ñu mën mesurer asamaan mesure bu ñuy mesurer asamaan am na boo xam ne waa ji day dem ba fële téye kii dem ba fële téye ñu mètre ñu ne asamaan tant de mètres la am na ah léegi yow loo fi gis mu rëy ci par exemple ñu ne lan moo gën a rëy ci créature yi yàlla sàkk ci kaw suuf yi ñu gis yi ñu xam ban moo ci gën a rëy ci li ngeen xam éléphant léegi éléphant bu rëyee ba jaaxal la benn éléphant bi nga gis mu rëy ba jaaxal la jàppal ne ay millions éléphant ñoo ne ci kaw suuf asamaan moo leen tiim te feesuñu ko suuf moo leen téye te feesuñu suuf tey par exemple ñu ne la ci moo tey ci ci kaw suuf dëkk bi ëpp lu am éléphant tey mooy Corne Afrique ah mooy Kenya Tanzanie ainsi de suite wala nga wàcc ci Afrique du Sud fu demee ni Afrique du Sud Botswana Cape Town dëkk yooyu ñoo ëpp tey lu am lu lu regorge éléphant ci kaw suuf Côte d'Ivoire amoon na ko ay temps seen seen seen seen kii sax mooy éléphant mais malheureusement bëreetul foofu kon Corne Afrique bi ak Afrique du Sud fa la gën a bëri léegi foofu tey soo fa demoon éléphant yi li ñuy rëy rëy rëy est-ce que feesal lañ suufu Afrique du Sud bi wala feesal lañ suufu Corne Afrique bi Tanzanie Kenya ak yooyu ay Moza- Mozambique feesal nañ ko feesaluñ ko kon créature boo fi gis lu mu rëy rëy rëy asamaanu ko tiim te feesu ko suufu ko téye te feesul suuf waaw ku bind lu toll ni asamaan créature bu toll ni asamaan créature bu toll ni suuf kooku mën na mën na li muy def wala mënu ko kooku tuuti la kooku tuutiwul ku màgg la xoolal suuf boo jëloon suuf wala asamaan sax mën nañ ci taxaw parce que dafa aajo woo xam léeg-léeg booy jàng usulu salaasa bii ak yeneen téere yi salaasatul usul lu tax borom xam-xam yi di wax ni wa min ayaatihi ah wala wa min maxluqaatihi alsamawatu wal ard wa min ayaatihi alchamsu wal qamar wa nujum lan moo tax borom xam tawxid yi di di focaliser wu ci asamaan di focaliser wu ci suuf di ci bàyyiloo nit ñi xel nga jàpp ne lu hasard la déedéet lu tax mooy ñoom ñaar dañ ne amul amul dëkk booy dem bu amul asamaan yéen xam ngeen dëkk bu amul asamaan dëkk bu amul asamaan ban dëkk la dëkk boo xam ne nañ dëkk bi amul suuf dëkk boobu kon nu muy exister kon dëkk bu amul asamaan ak suuf amut moo tax borom xam tawxiid yi di bàyyi loo xel asamaan ak suuf benn ñaareel bi ñoom ñaar ñooy créature yi gën a rëy yu yàlla bind ñetteel bi mooy ñépp a xam asamaan ak suuf kan moo xamul asamaan ak suuf asamaan ak suuf kan moo ko xamul soo nekkee bambara xam nga ko boo nekkee joolaa xam nga ko boo nekkee chinois xam nga ko boo nekkee russe xam nga ko boo nekkee japonais xam nga ko ku xamul asamaan ak suuf nit ku naan la xaw ma asamaan xaw ma suuf amul ñëpp dañ ne ñaari maxluqaat yooyu dañoo nekk loo xam ne ñëpp ko xam bi darura maalum bi darura dañ leen a xam ci loo xam ne lu essentiel la parce que seen existence ni ni mu mel la ku xamul asamaan amul ku xamul suuf amul xaleeg maga ci yem góor ak jigéen dof sax dof buy dof sax xam na asamaan xam na suuf ñi wér ak ñi feebar ñëpp xam nañ asamaan xam nañ suuf kon ku ko xamul amul wala déet ah beneen bi ku naan la gisuma asamaan gisuma suuf amul saa waay gis nga asamaan mu ne la noonoo gisuma ko waaw gisoo ko nii nii mais yàgg ngaa gis asamaan wala déet suuf ku naan la musuma gis suuf wala gisuma suuf amul loolu moo tax ñoom ñaar yàlla di ci joxe tudd asamaan ak suuf lu bëri ci alquran waaye borom xam-xam tawx yi di ci bàyyiloo nit ñi xel beneen bi mooy asamaan dafa bokk ci ay kéemtaanam kéemtaanam ba jamono ji may wax ak yéen nii yaakaar naa ay scientifique ñu ngi fi kenn benn scientifique xanaa ku ñeme yàlla mais benn scientifique bu la mën a wax ban matière la yàlla defaree asamaan amul asamaan ndax saxaar bu ñu wowal ci kaw la saxaar la wala ndox bu ñu congelé la wala lan la ku la ko mën a wax amul xam nga lu tax pour nga mën a xam asamaan lan la ko yàlla defaree il faut nga àgg ci asamaan dagg fa benn daggit dugal ko ci laboratoire et étudier ko pour xam principal composante yi lan la loolu am na ban scientifique moo dem ba ci asamaan mën a mën a mën a mën a da dajj ci asamaan tuuti ah jël ci benn xobbeti ci dagg ci ñëw mën ko dugal mënta nekk parce que mënoo àgg ci asamaan si amul. moo tax asamaan scientifique yi ba léegi mënuñu laa wax lan la asamaan lan la te lii di la tiim nii nga jàpp ne asamaan la ñi fi tukki yeeg avion xam nañu da ngay dem ba dugg ci biir sa digganteeg suuf si ay nuages nekk ci ay nuages ne ci. nga ne ci feneen te yow àggoo ci asamaan avion yi day dem ba réer ba kenn di ko gisati yow ngay xool suuf suuf mel ni benn xeer bu ndaw ah te yow àggoo asamaan li ngay seen nii apparence bii ngay seen nii ci kaw loolu nañ ko tuddee rek leneen waaye asamaan moom yàlla moo xam moo tax asamaan bokk ci kéemtaan yi nga jël suuf nga taxaw ci xoolal suuf bâtiment yi immeuble yi bato yi oto yi train yi usines yi ñu samp ci suuf yëpp suuf téye na ko dëgër daanuwul parce que yàlla bi muy sàkk suuf xam na doomu aadama yi ñu war a indi def ko ci kaw suuf nga xam ne day giisal suuf mu jox suuf poids boo xam ne suuf si du daanu tey bu ñu waxoon par exemple ñu ne monde bi Japon ak Chine ñoo fi ëpp ay usines boor boobu dafa bëri usine usine dafa bëri ba côté boobu dafa diis ba suuf si day xaw a day xaw a dem côté est-ce que loolu am na am na amul mënoon nañu wax ne tey Asie moo ëpp ay montagne montagne yi fa lañ gën a bëri foofu dafa diis ba suuf si kon montagne yi dañ koy yëkkati mu jëm côté boobu ñun boobu mooy ciwul dañuy glisser fekk gaay mais amul lu tax mooy suñu borom dafa bind suuf daal di koy niveler daal di koy daal di koy niveler mais xoolal bokk xoolal contraire bi yàlla ci xarañam ci xikmaam asamaan ak suuf ni ko yàlla bindee léegi bu fekkoon ne suuf moo féete kaw asamaan féete suuf est-ce que yéen a ngi imaginer séné séné ban scénario la ñuy nekk naka la ñuy dundee ci ban façon dundin lañuy la ñuy dund bu fekkoon suuf a nekk ci kaw ñëppay takk verre ku téen rek di da ngay fattu wala déet suuf bu ne woon ci kaw kenn du téen da ngay takk ay verre booy téen wala boo moytuwul di nga di nga di nga muur sa kanam mais yàlla jël asamaan def ko ci kaw des des suuf beneen bi asamaan yàlla bi mu koy sàkk dana wasamaa banaynaaha bi aydin waxaat ci yootu na ba wa banaynaa fawqakum sab'an shidaadan asamaan nee na da koo tabax léegi yàlla lu mu tabax day dëgër de wala du dëgër yàlla lu mu tabax day dëgër de parce que yàlla mesuram du fausé mesuram du fausé tabax bi day dëgër dosage bi dosage bi aussi du manqué entrepreneur loo aay aay mën ngaa posé ci mesure wala déet dosage bi mën naa manqué mais yàlla yàlla dafa xam li muy def xam-xamam dafa mat léegi asamaan bi ko yàlla bindee ba léegi mës ngeen dégg tremblement du ciel tremblement du ciel mës ngeen ko dégg ah mësul am ku la ku la wax tamit ne ay jamono ngi ñëw tremblement du ciel dina am waxul dëgg parce que yàlla moo ni wa banay naa fawqakum sab'an shidaadan la wax shidaad bu ne woon banay naa rek yem fa doy na damaa tabax juróom-ñaari asamaan yoo xam ne ci kaw la nekk tiim leen yoo xam ne shidaadan dafa dëgër këcc nag yàlla bu ne dëgër këcc dëgër na de shidaad dëgër na mais xoolal ci suuf suuf boo xoolee ñaari baat la yàlla utiliser ci alquran baatu madda ak baatu farasha madda ak farasha madda mooy lu ñu tàllal farasha mooy lu ñu lal wal arda farashnaaha suuf si dama leen kaa lalal léegi lu ñu lal lu ñu lal mën naa laaleeku wala mënta laaleeku mën naa laaleeku day laaleeku moo tax ngay dégg tremblement de terre suuf si day trembler parce que dañ koo lal tabaxuñ ko bu yàlla tabaxoon bu yàlla waxoon ne suuf si dama koo tabax du trembler mais nee na dama koo lal rek dama koo teg nii rek lal moo tax suuf di trembler moo tax nga mën a dégg tremblement de terre mais doo dégg tremblement tremblement du ciel doo ko dégg léegi si. te et puis dafa logique xam nga tremblement de terre bu suuf si trembler mën nga tëdd benn place yow di xool di jéem a xaar jéem a xool foo jëm après mais léegi tremblement de ciel ciel bi la tiim bu doon trembler foo jëm fan ngay daw jëm yow da laa tiim déjà bu fan ngay daw jëm moom kay da ngay taxaw di xool ndax am na luy ñëw kooku ci ci kéemtaanu borom bi la moo tax mu ni yàlla dafa prouvé kon lu tax ñu war ko jaam moo tax mu ne nu'minu bi uluhiyatillahi taala dañuy gëm ne yàlla mooy ki yelloo ñu jaamu ko mooy ki ñu war a jaamu bi uluhiyatihi ay bi ubudiyatihi ay annahu l ilahul xaq mooy yàlla y dëgg wa kullu maabudin siwaa lépp lu ñuy jaamu te du yàlla baatil neen la parce que nag vraiment dafa logigul yàlla bind addunaam bind monde bi monde bi ñu nekk muy la terre def fi ay nitam def fi ay jinneem def fi ay géejam def fi ay garabam def fi ay animalam léegi yow nit googu yow nga bokk ci ñi yàlla bind nga ñëw ne yéen nit ñi yàlla bind leen bind ma bàyyi leen yàlla écarté naa ko léegi kaay leen jaamu ma nekk seen yàlla léegi soo bëggee ku la jaamu da ngay doxa doxa doxa dox ba génn asamaanu yàlla génn suufam génn monde yàlla créé fa sa monde yow def fa sa asamaan sa suuf def fa say créature ne leen jaamu leen ma ñu jaamu la am nga ci droit wala amoo ci droit soo ko defoon ñu ne waaw mais yow nga nekk ci asamaan suufu asamaanu yàlla di dox ci kaw suufu yàlla nekk jaamu yàlla jàkkaarloog jaamu yàlla yi ne leen kaay leen jaamu ma loolu détournement d'objectif la da ngay détourner ah jaamu yàlla yi ci loo xam ne jaaduwut yellut moo tax mu ne lépp lu ñuy jaamu te du yàlla baatil la neen la ak kum mënti doon ak lum mënti doon moo tax wallaahi jaamu leen lu dul yàlla toroxal sa bopp la suufeel sa bopp la imagine nit koo xam ne day jaamu nag ni moom nag bu yàlla bind nag bi nekk créative nag boo xam ne day saw dem àll moo tax musulman yi nekk Inde ak Pakistan euh, di am problème toujours ak problème de cohabitation ak nañ fay nekkal mooy ñii dañoo jàpp ne nag yàlla la bu ñuy bu ñuy jaamu animal sacré la yàlla la ñii ñoom jàpp ne nag dañ ko war a mis wi léegi loolu toujours tension lay indi tension bu rëy lay indi ñu dañuy jàpp nag ba ko mis bi ñu ne leen suñu yàlla ji ngeen di mis bi coow li na kur loolu moo tax chaque fois ñoom ñu ngi ci ay ay guerre intercommunautaire guerre ethnique guerre ay guerre religieuse problème yooyu di dox seen diggante parce que yow lii da nga koy jaamu kii moom da koy mis bi wax dëgg yàlla du ngeen juboo juboo mënta am xoolal ki taxaw ci kanamu bant di ko jaamu bant bi nekk bant boo xam ne garab ci garab la jóge garab gi yàllaa ko sàkk garab googu yow yaa ko dagg yaa ko defar yett ko ñëw di ko jaamu wax dëgg yàlla suufeel sa bopp la toroxal sa bopp la kuy jaamu sa moromu nit di supp jalen ci kanamam di périer da lay reetaan parce que booy supp jalen ci kanamam di périer bu soxlaa lekk-lekk bu soxlaa dem ci toilette di la xaar mu ma ñëw bu bëggee nelaw ne la may ma damay noppalu kooku nga ne da nga koy jaamu dëgg yàlla suufeel sa bopp ak toroxal sa bopp la bu noonu dañuy gëm bi asmaa yi ci turu yàlla yi yàlla dafa am ay tur wa sifaat yi ak melokaan yi léegi turu yàlla yi turu yàlla yi yàlla kenn du ko jox tur loolu ñu bàyyi ci xel léegi ulamaul mantiq muy borom xam-xam bi gëstu ci philosophie wala logique islamique logique dañuy wax ni ci mantiq tur boo joxee tur da ngay jox tur loo xam ne yow yaa ko moom soo amee doom doom ji du sa doom la du yaa ko moom wala moomoo ko yaa koy tudd yaa ngi doom ji Samba laa koy tuddee wala Demba wala Ousmane wala Mouhamad wala Ngone wala Roqe wala Zeynab wala Umu Kalsum wala Fatima yaa tànn tur bi nga koy tuddee am nga ci droit wala amoo ci droit sa doom la du yaa ko moom tey boo demee ci marché bi jënd fi benn sa benn ginaar wala sa benn muus muus bi bu la neexee nga tuddee ko tur wala doo ko tuddee tur ginaar gi bu la neexee nga jox ko tur portable bi nga moom sa portable bu la neexee portable nga tuddee ko tur kër gi nga moom tabax ko ci buntu kër nga bind villa de monsieur Nangam wala madame Nangam du yaa ko moom wala moomoo ko. léegi li nga moom lu nekk yow yaa ko moom sañ nga koo jox non lépp loo moom sañ nga koo surnommé mais loo moomul nag yow sañ ngaa romb këru jàmbur këru jàmbur nga ñëw woo waa ji ne ko décorateur bi ne ko kër gi damaa bëggoon nga defal ma ci sama tur bindal villa monsieur Nangam te moomoo kër gi boo ko defee xam léegi yow yaa moom yàlla moomoo yàlla kon yàlla sañoo koo jox tur yàlla mooy jox tur boppam moo tax yàlla kenn du ko kenn du ko surnommé ñëw di jox yàlla tur déedéet moo tax li siiw fii Sénégal ñu naan maam yàlla ak ak garaw ñaari danger ci nekk mooy jox yàlla tur yàlla kenn du ko jox tur ku dul moom yàlla mooy jox tur boppam ci alxuraanam wala mu jox tur mu jox tur boppam jaare ko ci làmmiñ yonentam ci sunna yonent bi parce que yàlla moo xam nu mu tudd yoo xamoo nu mu tudd ba nga koy jox tur yàlla moo naan nii laa tudd jeex na point mais kenn du ñëw naa ni yàlla nii la tudd léegi maam yàlla kan moo ko tuddee boppam kan moo ko tuddee yàlla yàlla ko tuddee boppam ay nit ñoo ko tuddee léegi lan la mooy créer tur boo xam ne bokkul ci turu yàlla yi ak am audace audace di jox yàlla tur yàlla kenn waru ko jox tur benn ñaanal bi baatu maam dafa garaaw sirk da ciy feeñ maam mooy lan maam lu muy tekki ci wolof maam mooy lan mooy ku am doom ah doom ji am doom maanaam ku am sët léegi kon yàlla dafa am sët yàlla dafa am doom baatu maam loolu lay tekki léegi soo waxee ñu ne la d'accord am na am na lu ñuy indi ñu ne al umuru bi maqasidiha te innama al amalu bi niyat léegi nit ki nit ki dañuy xool lu mu jublu ci moo bi mooy moom jubluwu ci ne yàlla maam la ñu ne ko d'accord loolu dañ la koy nangul jubluwoo ci ne yàlla maam la d'accord parce que yàlla mënta nekk maam mais danger bi mu nekk mooy jox yàlla tur tur boo xam ne joxu ko boppam tur bi nga jox yàlla yàlla joxu ko boppam bokkul ci turu yàlla yi te yàlla kenn du ko kereel tur moom mooy jox boppam tur léegi tur yàlla jox boppam maam baatu maam fan la ci nekk ci ban aaya wala ci ban xadis amul kon tur boobu du tur bu ñuy woowee yàlla du tur du tur bu ñuy woowee yàlla loolu moo tax yàlla am nay tur wa sifaatihi yàlla am na ay melokaan melokaan yi aussi di yaay toog ba mu neex la rek nga ne yàlla boo demee nii la mel kooku ñeme yàlla la parce que yow amoo benn image ci yàlla ba naan yàlla nii la mel mais yàlla mi xam ni mu mel moo naan nii laa mel ki gën a xam ñëpp ni yàlla mel mooy yonent bi moo naan yonent bi moo naan yàlla nii la mel parce que doomu aadama yi yonent yàlla bi moo ci gën a maîtriser doomu aadama yëpp yàlla xam na li yàlla mel yàlla moo ko ko xamal kon yàlla moo naan nii laa mel wala yonent bi ne yàlla nii la mel point final keneen ku ñëw di wax leneen yaa ngi dugg fa warta dugg moo tax mu ne ay bi anna lahul asma al husna yàlla dafa am ay tur yoo xam ne gis nga husna tur yoo xam ne mooy tur yi gën a rafet kon turu yàlla day rafet rafet bi mooy lan moo day nekk tur bu neex a wax neex a dégg neex a jàpp neex a tudd ah neex a neex a tasaare mais tur boo xam ne neexul tur bi rek neexul mënut a nekk tur yàlla tur yàlla du ñàng ku ñëw naan la par exemple balla sa lasul wala baddooxu wala bad badadin dañ naan la yow dèjà lii yàlla la ne asma xusnaa la tur yi rafet la bi yii dèjà dafa ñàng tur yàlla day rafet te yii dafa ñàng yàlla ay turam day rafet assami albasir almumin almuhaymin alaziz aljabbar almutakabbir yooyu dafa neex a wax neex a dégg neex a répété neex a jàpp neex a tudd mais yi ngay wax ni boo ko répété wul wala jëluñu bi ak fay bind ko duñ ko jàpp li ma wax nii ku ci nar a jaaraat boo moytuwul di nga ko jaxase lan la mooy dafa ñàng te turu yàlla du ñàng dafay rafet xusna la wax walillahi al asmaul xusna turu yàlla yi dafay rafet kon bu rafetul rek baaxul ñu bàyyi ci xel wa sifaatil kaamilatil ulia melokaanu yàlla yi day nekk ay melokaan yu mat sëkk du manqué bépp melokaan bu ñu jox yàlla bu manqué du melokaanu yàlla melokaanu yàlla yi day mat al ulia yu kawe yi loolu ñu bàyyi ci xel mu ne wa nu'min dañuy gëm bi waxdaaniyatihi fi zalika dañuy gëm ne yàlla dafa unique dafa wéet ci turam yi wéet ci melokaana bi nuruwu ci lenn ay bi annahu maanaam laa sharika lahu amul kuñ ko cay bokkaaleel ci turam yi wala ci ci melokaana bi amul kuñ koy bokkaaleel fi rububiyatihi ci nguuram gi wala fi uluhiyatihi du ci jaamu gi ñu koy jaamu wala fi asmaihi wa sifaatihi du ci tur yi ak melokaan yi attribut yi mu am yàlla ay attribut yam kenn du ko ci bokkaale nuruwu ci ak kenn mu ne qaala allahu taala yàlla moo wax ni rabbu samawati wal ard mooy borom asamaan moom yàlla mooy borom suuf kenn du borom asamaan kenn du borom suuf ko dul yàlla wa ma baynahuma li na ci diggante asamaan ak suuf yàllaa ko moom faabudhu moom yàlla rek ngay jaamu wastabir li ibadatihi te sooy jaamu yàlla ah dafa ànd ak nag nga muñ di taqoog muñ ci jaamu gi nga koy jaamu hal taalamu lahu samiya ndax xamal ngeen yàlla turandoo yàlla am na turandoo c'est-à-dire turandoo suñ koy wax mooy koo xam ni daa am lu mu jël ci yàlla am lu yàlla mën mu mën ko am ay melokaan ne ci yàlla ne ci moom am na amul li fi nekk kay mooy woote woo yàlla woote woo ak yàlla ak di jéem a yàlla yàllalu loolu moom mi ngi fi jéem a yàlla yàllalu mi ngi fi mais nekk yàlla mënta nekk parce que yàlla du juddu te kiy woote woo yàlla daa juddu daa juddu ñu tudd ko am ñoo xam ne lekk nañ laa xam am ñu lekk ceebu ngénteem mu xëy na yàlla la te yaayam ak baayam nekk nit imaam bi ko tuddoon nekkul yàlla nit imaam la ba léegi moom mu nekk yàlla kenn mësu ko gis yàlla du judd bi nga juddoo rek disqualifié ku judd rek yow disqualifié nga pour nekk yàlla parce que yàlla du judd yow da ngaa judd yow bi nga juddoo bokkatoo ku bëgg a nekk yàlla da ngay fexe ba doo judd boo juddoo rek disqualification am na kon ñi judd yëpp naan yàlla dañ ñoom dañ leen disqualifié bokkatuñ loolu loolu lay wax hal taalamu lahu samiya wa nu'min dañuy gëm bi annahu moom yàlla bi annahu moom allahu mooy yàlla muy ayatul kursi mooy aaya bi gën a màgg ci alquran waxuma aaya bi gën a gudd de azamu ayatin fi alquran mooy aaya bi ëpp valeur aaya bi gën a màgg ci alquran mooy ayatul kursi lan moo tax mooy aaya bi yëpp ci yàlla lay wax ci yàlla jëmmi yàlla melakaanu yàlla capacité yàlla li nga xam ne mooy kàttanu yàlla mën-mënu yàlla ci aaya bi ci loolu lay wax moo tax mu nekk aay bi gën a màgg ci alquran boo gisee fatiha sul fatiha nekk saar bi gën a màgg ci alquran parce que li tax mu nekk azamu suura mooy fatiha yépp ci tawxid lay wax li tax suratul ixlaas yonent bi alayhi salaam mu ne taadulu sulus alquran de ixlaas dafay toll ak ceeru alquran parce que ci tawxid lay wax lu laal tawxid day màgg parce que tawxid yàlla la yàlla directement la te yàlla dafa màgg lu laal yàlla màgg loolu moo tax ayatul kursi gën a màgg fatiha gën a màgg mu ne allahu moom yàlla yàlla laa ilaha amul benn yàllay dëgg bu ñuy jaam illa huwa ku dul moom alxayu mooy kiy dund dund goo xam ne gu sax dàkk la mbokk yi baatu xayu lu am solo la mooy yàlla day dund dund goo xam ni gu sax dàkk la ku dul yàlla sa dund day jeex garab boo fi ji day dee oto boo fi am bu yàggee day màgget wala mu yàqu portable day yàqu ordinateur day yàqu bâtiment day daanu wala mu yàqu wala mu màgget wala mu toj wala déet yére day dem ba furi wala mu dem ba ràpp wala mu dem ba xotteeku dàll day dem ba dagg nit day faatu animaux yi dañuy dee jinne yi dañuy faatu lépp day dem mais yàlla moo am dund gu sax dund goo xam ne gu éter gu éternel la ah vie éternelle yàlla rek ko am kooku mooy alxayu mooy ki nga xam ne day dund dund gu sax dàkk dundam amul amul fin waaye alqayyuumu mooy borom kàttan gi nga xam ni moo taxawu boppam moom yàlla moo taxawu boppam lépp lu taxaw yàlla moo la taxawal lépp lu am yàlla moo la amal mais yàlla soo fi nekkee yow di sa xel di xalaat yàlla nu mu amee sa xel mi day planté léegi ni ordinateur di planté la xel mi di planté parce que loolu dafa dépassé sa capacité xel xel mi mënu koo mënu koo détecté yàlla naka la amee kooku bàyyi ko moo amal boppam point final jeex na naka la amalee boppam bu ci dugg bu ci dugg balaa sa xel mi di am problème loolu mooy xat o tam'i an idraaki kunhi laa taaxusuhu moom yàlla du ko dal du ko atteindre mukk sinatun gëmmeentu yàlla du gëmmeentu léegi ku yàlla yàlla lu fexeel ba doo gëmmeentu ku bëgg a nekk yàlla da ngay fexe ba doo gëmmintu yaakaar naa fii ku fi nelawul 24 heures 24 heures ku fi nelawul booy wax boo moytuwul dinañ taf sa dinañ taf sa gémmiñ parce que doo waxati loo xam da ngay commencer perdre ay ay vices parce que nit bu nelawul du nekk wala déet boo sonnee maanaam xaaral ma dem tëdd nelaw récupérer waat tuuti amaat force jóg xel mi bu sonnee boo réviser ba sonn dem tëdd nelaw parce que nelaw gi da lay mayaat force. xel mi mën a nekkaat nit bu toogee 24 heures 3 jours nelawut day commencé départ léegi mu départ boo ko xoolee xam ne kii ça ne va pas bëj day xonk cur xóot dugg ci biir yaram bi tàng tàyyeel nag teg ci suy wax bëdi di bëdi di kolew parce que gëmmentu gaa ngi fi même buy même buy forcé même boo gëmmentu woon yow rek toog benn place rek gëmmentu nga ne doo nelaw nañ la seetaan nelaw mënoo ci dara da ngay jékki-jékki jëm gauche jékki-jékki dem droite dem ci kanam dem ci ginnaaw boo moytul sax nga daanu àgg terre lan moo tax mooy nelaw nelaw mënoo ko tricher du lu ñuy tricher nelaw du lu ñuy tricher yàlla daf koo bindaale ak nit heure am su jotee day ñëw te du tàggoo te mënoo koo daax des fois nga gis koo xam nelaw yi day ñëw gémmént gi day ñëw mu naani café affaire yi ñëwaat mu naanaat beneen kaas affaire yi ñëwaat mu dem sëlmu dug doxantu nelaw yi nekk fee rek di ko xaar lu ne mu dugg ci nelaw parce que lan la mooy suñu borom dafa bindaale nit ak nelaw te bu jotee day ñëw mais yàlla moom du gëmmentu laa taaxusuhu sina gëmmentu du ko dab wala nawmun waxuma la nag ay nelaw ku dul gëmmentu di nga nelaw xam ngeen lu tax mooy yàlla su doon gëmmentu wala muy nelaw catastrophe day am mooy dafay am ay ay ay détails yu koy échappé moment bi yàlla ay nelaw am na lu rëcc am na am na gars yu profité def ay affaire ñoo toogaat xam nga nit dafa doy waar doomu aadama nit dafa dafa nit dafa doy waar nit bu ko leeroon yàlla day nelaw danaan no am na loo xam ne du ma ko defagum damay bàyyi ba moment bi yàllay nelaw ma profité gaaw jàllale ko après ñëwaat toog léegi kon day am détail yi rëcc yàlla te yàlla benn détail waru ko rëcc te yàlla lépp la xam te suñu nee yàlla lépp la xam mooy amul ci xam-xamam amul manquement léegi su doon nelaw am loo xam ne rëcc na yàlla kon yàlla xamul lépp moo tax yàlla mënta nelaw yàlla mënta nelaw du gëmmeentu waxuma laa di nelaw lahu laam bi laamul milk la lahu nekkal na yàlla ah maa fi samawaati ah maa bi mawsuuliya la masdariya la allazi fi samawaati jamiu allazi fi samawaati mbooleem li ci asamaan mbooleem li ci asamaan yàllaa ko moom wa maa fi l ardi mbooleem li ci suuf yàllaa ko moom kooku mooy kooku mooy almilkiya tàmma mooy moomeel bu mat sëkk yàllaa ko moom yàlla moom asamaan te amul frontière foo xam dañ naan ko yàlla no yow da ngaa moom sa moomeel dafa fii nga moom ba fii yemal fii ah li ci des am na keneen ko ko moom si suuf si nga ñëw ne yàlla yàlla fii la moom ba fii mais à partir de fii ba fii yàlla moomoo ko kan moo am audace ñëw di di limiteel yàlla yàlla moo moom mboolem li ci asamaan moom moom mboolem li ci suuf yow mii di yàlla yàlla lu sa buntu kër sa buntu kër moomoo ko sa kër 300 mètres carrés yi wala 150 mètres carrés yi nga am moom nga moom mais kër gi nga dendal demal ne waa kër googu génn leen kër gi maa ko moom demal wax leen ko kër gi nga jàkkaaroo ne leen yéen génn leen seen kër kër gi maa ko moom dootoo ko def kon yàlla moom moomeelam amul limite moom moom mboolem bi ci asamaan wa maa fil ardi mboolem bi ci suuf juróom-ñaari asamaan yépp yàllaa leen moom ak li ci diggante bi ak li ci biir juróom-ñaari suuf yi yàllaa leen moom ak li ci biir mu ni waaw kon yàlla moom moom loolu lépp te mooy yàlla léegi man zal lazi kan mooy ki nga xam ni yashfau dina ramm indahu fa yàlla ñëw yowmal qiyaam ne day ramm fi yàlla illa bi iznihi ci amu ci ndigal li ngeen di tuddee intercession ah intercession muy ramm muy ñëw ne yàlla dama lay ñaan diw ak diw ak diw ak diw nga jéggal leen baal leen te xool ma ci yërëm leen ngir jëf yu ñu def ñu dugg àjjana xam nga fii Sénégal li ñu yaakaar mooy samp nañ ay nit ñoo xam ne ñoom yomal xiyaam dañuy dañuy dañuy dañuy ramm dañuy ñëw taxaw ci kanamu yàlla ne yàlla diw sama mbooloo la bokkoon diw ñoo bokkoon dëkk diw sama kuréel la bokkoon day dem àjjana directement mbir yi demewul noonu de yàlla dafa wax ci suratu zumar ci suratu zumar qul lillahi shafaatu jamia mboolem ramm yàllaa ko moom yonentu moomu ko malaa ko moom ko yàlla mbirum ramm yàllaa ko moom fii mu ne ramm balaa ngay ramm fële da yàlla da lay jox ndigal léegi kan moo sañ a ramm te yàlla du ko jox ndigal ñaaroon nga dégg fi ay waykat bu di ko taxawee ci kanamu jaami ramm mbooloom ma ramm kuréelam ba ramm noonu la da nga ñëw rek ramm mais ramm daa am da il faut nga am autorisation tribunal boo fa demee tribunal xam ngeen tribunal bi Dakar palais de justice soo demee tribunal tey ñuy jugé yow nga nekk ci biir salle bi juge bi di wax avocat yi tontu yow sañ ngaa jékki-jékki rek ne non affaire bi demeewul noonu de sañ ngaa jékki-jékki rek wax wala foog nga laaj parole ndigal bañ bañ jox la parole même bu fekkee yow yaay ki nga xam ne yow la ñuy jugé yow sañoo jël parole te juge bi waxu la léegi lii bëggoon naa nga wax ci wala nga demandé ñu ne la waxal da nga jékki-jékki rek wax sañoo ko loolu fii ci àdduna fii ci sa moroomu nit sañoo ko commissariat bi rek boo fa duggoon ñu lay entendre di la defaral PV sañoo wax te enquêteur bi waxu la waxal léegi yàlla ku toll ni yàlla léegi am ay nit ñoo xam ne ñoom am nañ pouvoir dañu ñëw rek commencé wax nu mu leen neexee sans ndigal loolu mën naa nekk ci yàlla mënul nekk moo tax mu ne man zal ladi yashfau indahu illa bi izni kan mooy ki nga xam ne sañ naa ñëw di intercessé di ramm ci kanamu yàlla illa bi izni dul ci ndigalam kon ramm dafa am ay charte moo al izn moo jiitu moo foog ndigal am ci foog ñu jox la ndigal yaalamu yàlla xam na maa bayna aydihim li nga xam ne moo fi jiitu woon ci seen kanam yépp yàlla xam na ko wa maa xalfahum yu ñëw seen ginnaaw yàlla xam na ko wala yuxituuna te yéen jaam yi yéen nit ñi ñoom nit ñi peeguñu maîtriser wuñ bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam-xamu yàlla illa bi ma sha lu dul lu ko ci soob mu xamal leen ko wasiya gën naa yaatu kursiyihu chaisam ba moom yàlla asamaawaat yi juróom-ñaari asamaan yi wala ard ak suuf si lii xel xel du ko dégg de da ngay gëm texte bi te noppi sinon boo koy lijjanti li ma leen di wax xel mi day am problème chaisu yàlla chaisu yàlla bi kursiyam moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi loolu man maa ko wax man maa ko wax kan moo ko wax yàlla lu mu wax dëgg wala du dëgg léegi keneen bu ñëwee du remettre en cause waxu yàlla moom moom waxam la ñuy remettre en cause wala waxu yàlla ah waxam la ñuy remettre en cause yàlla moo ne sama chaise bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf benn waaye ñëw ne la waa loolu moom ñu ne ko yow say wax yi kay la ñu wax loolu moom yow boo ko naree remettre en cause wala nga ciy dute yow say wax la ñuy dute parce que loolu dafa dépassé sa xel yow sa xel daf ko dépassé dépassé sa xel da ngay gëm li la texte bi wax wala yauduhu te du ko sonal du diis ci moom méttiwul ci moom hifzuhuma hifzuhuma mooy surveiller leen surveiller leen asamaan ak suuf ñoom ñaar yàlla sonnul du ko teg benn coono benn métit benn stress benn jafe-jafe ci yàlla di leen surveiller mboolem ne ci asamaan lu fay xew xam na ko mboolem ne ci suuf lu fay xew xam na ko wal ali yàlla mooy ki kawe nga ne yàlla kawewul al ali léegi firil al ali al ali mi ngi jóge ci olu yàlla mooy ki kawe al azim mooy ki màgg loo jël yàlla ko gën a màgg loo xalaat yàlla ko gën a màgg loo gis yàlla ko gën a màgg al ali mooy ki kawe al azimu mooy ki màgg mu ne woonu mun dañuy gëm bi annahu moom yàlla huwa allah moom mooy yàlla alladi mi nga xam ne laa ilaha illa hu amul kenn ku ñuy jaamu ci dëkk ku dul moom aalimul xaybi yàlla dong mooy ki xam kumpa mooy ki xam li ñëwagul wa shahada mooy ki xam li teew bu ñuy wax aalimul xaybi mooy alxaybul mutlaq mooy kumpa carrément léppi kumpa léppi kumpa kumpa yëpp yëpp yëpp yàlla rek moo ko xam kumpa mooy lépp lu ñëwagul mais li nga xam lenn ci kumpa ngir ne daf sa programme da cee aju wala dafa bokk ci loo xam ne noonu ngay liggéeyee loolu kenn terewu ko ñun ñi nga xam ne tey nga xam ne suba mardi la mardi sama emploi du temps lii la lii la lii la bu dee ci wàllu liggéey lii laay liggéey bu dee ci wàllu añ lii laay añee bu dee ci wàllu euh, ay ay programme ngoon gi fii laay dem guddi gi fii laay nekk loolu xam nga ko wala xamoo ko xam nga ko mais ñëwagul lan moo tax mooy dafa aju ci sa liggéey dafa aju ci sa programme mais suba mardi bi même mardi boobu suba lu ajuwul ci sa liggéey ci sa programme xamoo ci dara parce que mardi boobu suba yow xamoo luy xew tey yaa ngi fii Dakar université Thiès ba suba xamoo lu fay xew wala xam nga ko xamoo ko yoonu mbuur bi xamoo lu fay xew parce que ajuwul ci sa programme ajuwul ci sa liggéey li nga mën a xam à l'avance mooy lu aju sa programme ak sa liggéey te sax mën a jékki-jékki faussé te faussé boobu doo ko maîtriser yow doo ko maîtriser kon yàlla mooy ki xam kumpa yépp yàllaa ko xam wa shahadati li feeñ li teew yépp yàllaa ko xam yow li teew nii mën na am loo ci xam mën nga xam ni actuellement nii ñun ñu ñu ngi teew ñu ngi wax ñu ngi ci séminaire ñu ngi wax loolu xam nañ ko mais ndax ci kanam courant day coupé xam ngeen ko wala xamu leen ko ku ko fi xam kenn xamu ko ak yeneen yi ak yeneen yoo xam ne ci kanam xamoo ko loolu yàlla moom moo ko maîtriser huwa rahman yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki am yërmaane ku yaatu yërmaane googu nga xam ni ki ko gëm ki ko gëmul ki ko weddee ki ko weddiwul ñëpp la dugal ci biir loolu moo tax nga mën a gis yàlla yërmaaneem gu yaatu googu ci arrahman mën nga mën a gis benn waay weddi yàlla di défier yàlla yàlla bàyyi ko fi muy dund yàlla mënoon na koo faat yàlla bàyyi ko muy dund di yàq di réeral ay nit mu nekk fi dafa yàlla dafa bëri yërmaane yow su doon yow léegi léegi nit ku la tooñ léegi léegi te nga maîtriser mën a def ci moom léegi léegi da nga ko koy won wala déet mais yàlla nit da koy tooñ te yàlla mën na ko koo woon léegi léegi te yàlla ci fraction de seconde mën na koo toroxal yàlla bàyyi ko fi mu dund fi cent ans réeral fi réeral fi un million personne si borom bàyyi ko rek di ko seetaan lan moo tax mu yàlla yàkkamtiwu ko dafa di ko téye te yàlla bu ko téyee du rëcc da koy seetaan yàlla ci yërmaaneem dina dina ko bàyyi fi mu lekk naan bànneexu mooy yàlla caaxaan ci sama yërmaande dinaa ko bàyyi ba dajeeg moom yërmaande yàlla dugal ko ci yërmaande gom gom bàyyi ko di ko jay moom mu jàpp ne vraiment affaire bi dara la fekk yàlla moom moo koy jay kon kooku mooy arrahman mooy yërmaande gi yaatu gi nga xam ni ñépp la ci dugal ku gëm ak ku gëmul ku nangoo ku ko nangul ku ko topp ku ko toppul ku ragal yàlla ku kàccoo arrahim mooy borom yërmaande gi nga xam ni yërmaande googu da koo gën a jagleel ñi nga xam ne ñooy ñi ko topp nga xam ne ñoo ko gëm ñi ragal yàlla bu nekkee ci jaaxle nekk ci jafe-jafe yërmaande boobu lay wàcce ci ñoom huwa allah mooy yàlla alazi bi nga xam ne laa ilaha illa hu amul benn buur amul benn yàlla bu ñu war a jaamu dëgg ku dul moom almalik mooy borom nguur alqudduusu mooy ki sell dëgg-dëgg sell dëgg ci yàlla la nekk assalaamu mooy borom jàmm mooy moo yore jàmm mooy joxe jàmm ku am jàmm moom la ku ko ñàkk moom la yàlla mooy jàmmalaate léppam jàmm la almumin mooy ki nga xam ni ku gëm ay mbiri boppam la sant ay jaamam ñu gëm ko almuhaymin mooy ki domine lépp mooy ki peeg lépp al aziz mooy ki tedd aljabbar mooy borom kàttan goo xam ne gu dëgër la almutakabbir mooy ki nga xam ne mooy ki rëy ci kaw lépp moom yàlla subhaanallahi sell nekkal na ko moom yàlla sikkul manqué wul amma yushrikuun ci mboolem lu ñu koy bokkaaleel huwa allahu mooy yàlla alxaaliqu mooy aji sàkk albaari'u mooy ki nga xam ne mooy kiy sos almusawir mooy ki nga xam ne mooy melal mooy jëmmal alxaaliqu mooy ki nga xam ne mooy mooy créateur mooy ki créé albaariu mooy ki nga xam ne mooy innové wala mooy mooy mooy almunshi maanaam mooy tàmbali sos dara moom yàlla almusawir lépp loo gis nu mu mel image ba nu mu mel yàlla moo ko jëmmalee noonu c'est-à-dire ci misaal soo ne woon doomu aadama nit lu tax nit amul quatre pattes comme animaux yi waaye dem suñu borom daf ko def mu taxaw nii jëm ci kaw ginaar ni ko yàlla bindee deux pattes la am mais yorul forme nit muus am quatre pattes tuuti ak ni mu mel image boobu yàlla moo ko def loolu mooy almusawir mooy ki nga xam ni mooy jëmmal mooy xool lu nekk image bu mu lay kole te image bu mu la jox moo gën ci yow soo fi nekkoon naan nit ni ko yàlla bindee nii vraiment nekkul lu parfait xaaral ma jëm ko modifier boo koy modifier nit ku terrible ngay indi ku ñàng ngay indi soo demoon rek bët yi bët yi fi ko yàlla def baaxul lu tax newul ci digg bopp bi soo fi gisoon nit ku am bët ci digg bopp nga àll ko wala déet gémmiñ bi boo ne woon fi yàlla placé gémmiñ gi baaxul dafa waroon nekk à côté wala ci ginnaaw boo fi gisoon nit koo xam ne gémmiñ gi fii la nekk doo ko xool kon ñi yàlla tegee nit image bi mu ko jox image bi mu jox lépp lu mu sàkk noonu rek la mën a mel asamaan si su ko yàlla defoon beneen forme nii rek la mën a mel du baax suuf si ni mu mel nii nii rek la mën a mel loolu mooy almusawir lahu l asmaul xusna nekkal na ko tur yu rafet ya yusabbihu lahu daf koy sàbbaxaal moom yàlla maa fi samawaati sans exception mboole lu ci asamaan wala ardi ak suuf si lépp lu nekk ci asamaan ak lépp lu nekk ci suuf moo xam lu am ruu la lu amul ruu la lépp day sàbbaal yàlla yusabbihu lahu maa fi samawaat maa fi ard lépp lu ci asamaan ak lu ci suuf day sàbbaal yàlla muy géej yi di montagne yi di ñax yi di garab yi di animaux yi lépp day sàbbaal yàlla loo jël day sàbbaal yàlla kon yàlla wax nañu ne ñax yi garab yi xeer yi géej yi montagnes yi yépp dañuy sàbbaal yàlla xam ngeen ci début année 2000 yi université Ottawa bi nekk Canada dañ découvrir oon ne ñax yi ñax yi dañuy wax am nañ langage ci benn appareil bu ñu jël ñëw ba ci biir ñax yi teg ko fa def fa ay produits yoo xam ne lépp luy insecte dafay jóge ñax yi rek a fi des mais dañ jékki-jékki gis ne ci biir appareil bi day am ay vouvoiement yu ci nekk son yi day yéeg ak a wàcc ñu ne ñax yi dañuy wax ñoom ñu def ko benn découverte def ko benn découverte benn professeur musulman d'origine pakis- pakistanais bu dee ci université bi moo leen ne li ngeen def ni du découverte de ñu ne ko ah lu tax appareil bii ñun ñooy ñu ko njëkkee créé ci monde bi mu ne leen d'accord mais pour ne animaux yeeg montagnes yeeg garab yi dañ am nañ langue dañuy wax ñun yàlla waxoon nañu dañuy sàbbaal yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ci suratul isra loo jël day sàbbaal yàlla fii mu ne yusabbihu lahu ma fi samawati ma fi l ard yàlla waxoon nañu dañ koy sàbbaal naka lañ koy sàbbaale yàllaa ko xam nag mais dañ koy sàbbaal dañ koy dañ koy sàbbaal moo tax mu ni yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fi l ard lépp lu ci asamaan ak lu ci suuf dafay sàbbaxal yàlla wal azizul hakim yàlla mooy ki tedd mooy ki am xereñ nga xam ni mu am sagesse lu mu def noonu la mooy le sage tey kon fu mel ni heure bi jot na mën nañ taxaw foofu yàlla mën naa yombal insha allahu taala ñu ñu um traité ñu jeexal ko buñ ko jeexalu tamit ah luñ ci jël rek muy noonu hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain fu mel ni ñaar lañ def fii ah suñu bi la d'accord ah ok ñaari kii la waaw ay ah bi mooy suite bi waaw waaw d'accord. waaw